li ma ñëw xool si suñu alal fan nga ci toll. man alal. alal bi la suñu yaay dégg nga des ci sa tànk. man ak yow ci bitti la ñuy fanaan tu as intérêt nag nga trouver léegi solution. garukaay ko takk. donc je peux dire alhamdulilah ndax man tamit ci gaañ laa bokk. ba xam nga ni sur le plat bi ko nous devons apprendre à accepter et à respecter nos choix individuels. man mënuma renoncer mes principe pour adapter wu ci relation boo xamante ni dox à l'encontre de ce que je suis. est-ce que xam nga ne kër gi mën naa mujj ci say loxo. je veux devenir la meilleure version de moi-même et pour cela il faut que je fasse la paix avec mon passé. et c'est maintenant que tu juges nécessaire de le faire. quand tu ne maîtrises pas la direction du vent.

dinañ wujjee neex. est-ce que xam nga laay lu tax mu jafe la c'est parce que dama ko yomb. je crois que temps wala accordé woon jeex. lii nag mooy game of life sometimes yu win sometimes you lose. démb yaa ko yoroon. tey sama ginnaaw lay jal alors qui est le perdant. tu n'as rien à foutre. laisse-moi gérer les choses par moi-même. wéyu. bandé baayam. ngay raisonné boo ci juguli. de la hâte. Et tu finiras mal. Et si tu as besoin de moi, tu sais où nous trouver. Là, nous allons Il faut savoir quitter la table. Quand le respect n'est plus servi.